Balla Gaye bi euh, état bi mu yor ñun ñi nekk ak moom dëgg yàlla moo ñu gënal ci yeneen combat yi sax. Hmm. dëgg yàlla. kon bii am na différence ak yeneen combat yi. bii moom dina dina mën a foo ci contact ak lépp nag. dëgg yàlla. mais ñu gis Balla Gaye combat bi mu lëlu si lëlu boo xam ne nii këj na kaa def saa suy bëri Modou loo la ñuy gis mu lëlu lëlu boo xam ne nii kenn du gis Balla Gaye fenn lu mooy woote nañ signature wala woote nañ loo xam ne nii dafa mënut a ñàkk Balla Gaye feeñ fan la leen combat bi toll ba Balla Gaye lëlu si lëlu bi gannaaw bu mu jógee INSEPS. encore daal ndam lañ ci séentu ndam moo tax ku ci mel ne staffam di Aziz ñoom ñoo ko yóbbu sa fekk mu liggéey liggéey na ba mu ñëwee itam gis ngeen ko wax ngeen ko dafa lelu te it ku lelu ku nekk yaakaar naa ni am na lu mu visé am na lu mu bëgg waaw te xëy na loolu moo ko mën a may gannaaw sababu yàlla suñu borom mi nga xamante ni mi ngi koy def mi ngi entraîné ngi mi ngi entraînement daal ci ci fànn yëpp moo xam ci fajar gi mi matinal musculation box contact mi ngi liggéey gii ba tey non actuellement nag dafa lëlu daal dafa lëlu. mais est-ce que tamit pression du am ndaxte Balla à chaque fois saa su Salif ñëwee bëre daanu dafay bëgg ñëw tey jii nii redorer le blason. Salif saa su Balla ngay ñëwee bëre ñàkk dafay bëgg ñëw wane beneen xar kanam est-ce que Balla tamit du am pression vu combat bi nga jógee récemment ak Eumeu Sène. non ça n'a rien à voir parce que pression moom jaa jàpp ni premier combat. nga ko war am parce que doo miin géew ba xamoo géew géewu mbapat nga xamoon en plus mais koo xamante ni bëre nga bëree bëri bëri ba jël roi des arènes xam ba toll fi nga toll noonu pression moom bu la dawee ma xam lii dëgg yàlla mooy loolu mais victoire Sa Thiès défaite Sa Thiès ça n'a rien à voir ak ci làmb ji mu jëm mmh. tey Balla Gaye si ban état d'esprit la toll ak laaj nga ma ko sànq. non yi bokkul ak loolu. ok supporters yi parce que parce que bokkul parce que dafa am lu mu waxoon. ndaxte tey li ci war dëgg lay def muy liggéey ah, Balla Gaye ak supporter bi ndaxte dafa may supporter yoo xam ne ni amuñu sago ci moom parce que dama wax état d'esprit si entraînement mais ñu ñëw ak supporter yi waaw yi tey jii bu fekkante ni entraîné woo nga woo leen sax duñ ñëw rawatina nag ngay entraîné nekk ci best forme mhm. nekk ci forme surtout bu naturel forme bu baax parce que tey loolu moo tax tey ñu lay naw loolu mooy tax ñu am ci yow confiance ba dem di la seetaan mhm. gëm naa ni ñoom ñëpp dinañ ñëw stade bi Balla Gaye ak ay supporteram moom nañ ko bàyyi ak dëgg mhm. yàlla kenn ëpp ko supporté ci àdduna mhm. Mhm. kenn gàq ko làmb ci àdduna te aussi moom rek mooy bëri combat bu bëri bruit bu am coow loolu la ko yàlla jagleel aussi tamit bëri bi macha allah waaw mais nag yoon du ñàkk tolof tolof il faut ñu bàyyi xel ci loolu nit loo fi mën a mën a mën a mën wala nga dàq fi dàq fi dàq fi bis dina mus a ñëw xama di nga mus a jar di nga mës a ñàkk ci yoon wala mu ñagas mais du la nga nekk ci sa yoon nekk ci sa dynamique damay dugg doolu ma bàyyi ma dem kon état de santé am léegi macha allah non sant yàlla alhamdulilah mais mënul ñàkk démb benn question d'actualité sa doomu day poussé bëggoon def li nga xam ne ne defal nga ko yàgg rek rek ñu dóor ko ne pousse poussé taaw na <laughs> <laughs> waaw <laughs> buuse engrais la yàlla baax na premier combat la rek loolu dara waaw Amine yàlla na ko encaissé lépp loolu mérité na ko aussi non man taluma loolu non non non buuse moom laa lay wax sànq moom laa dama ne li premier fois la dafa demoon pour tas yàlla xaj na ko mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci leneen aussi mm-hmm. te defe naa am na yeneen combat yeneen contrat yu si mm-hmm. ñu koy ñaanal li ci des yëpp mu doon ndam nee na màggal gee taxoon loo koy conseillé ngir waaw moom màggal moom mun na cee mun na cee sax tay la bakkanam mais avance bi gars yi ruuma naat giri giri Sa Thiès ma avance kenn wax dëgg yàlla ah. jël ma avance kenn coow li bari na de coow li bari na ci de. non ba coow li bari jël ma safin bu bees. rek moom la. jëriñ bu bees. vingt la tax. saf daal Balla Gaye bii ma gis nii daa mel ni Balla Gaye bu am ans wala dix neuf ans. Mhm. waaw moom forme boobu lay xel. ak bëre beeg lépp. xel ñu ngi woo ñëpp. waaw ñu ñëw ñu soutenir ko mhm. comme d'hab waaw ñu ñëw gis beneen supérieur.